يالله يا من لا إله خيره يا من يجيئني ñoo ngi sant yàlla tey julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di am nag mbégte mbégte mu sori lool ci suñuy xol ndax am na yaakaar bu baax ni tey salle bi ku fi ñëw di nga xam ni lépp yokk kon loolu ñu sant ci yàlla suñu boroom ñu ñëw fi nag monsieur le gouverneur ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Amine Bara mu boole ñu ak délégation bu mag waaye itam ñu ànd ak yeneen ñaari délégation donte ci ñun lañ bokk délégation bu njëkk bi mooy xam nga ni Cheikh Mouhamadul Amin bi ko Seexul Xadim di ko yebal mu ñëw Mbàkke Kajoor daf ko yebal ci ay mbokkam ci maam Amar Fall Mbàkke bi nga xam ni mooy waajuru Sëriñ Cheikh Kajoor mii di imaamu Mbàkke Kajoor nga xam ni Seexul Xadim bi mu jógee Mbàkke Kajoor bi ñibbi Tuubaa dafa dem Jolof jël fa rakki Mamoor Anta Sali muy sëñ Mbàkke Ibra bi nga mooy sëñ Mbàkke Kajoor ak njabootam nekk fa mu ñëw jox ko ji nga xam ni Mamoor Anta Sali moo ko sancoon ginnaaw bu mu jógee Nioro ak Lat Joor ñibbi si fi bi Lat Joor nekkee kër Amadou Yàlla indaale ma war Anta Sali moo xam ni ab sëriñ ak buur mënuñoo bokk am penc ci la ko laaj ni ko foog nga wutal ma foo xam ni dama fay mën a jàngale bi mu ñëwee ci suuf Mbàkke Kajoor sax jëkkuta dal Mbàkke Kajoor waaye fi ñuy wax ngébbal la ko jëkk a yóbbu waaye sëriñ bi bi mu xoolee foo xam ni am na ay njeexital yu fa nekk mooy dafa am ñu fa dëkkoon mu war ko nit ñi dañoo dem rek waaye danañ dellu si mun ko suma seen wutal ma faneen en 1880 en 1880 ci la ko wutale Mbàkke Kajoor boobu Mamadou Anta Sali nekk fa di jàngale di yare daan fa àttale Lat Joor mu am fa ñetti at génn àddina foofu ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi yóbbu ko deqale ba mu fa nekkee lu dul ci juróom-ñaari at itam war a ñibbi Mbàkke Bawol ci la jëlee suñu maam ju sell jooju suñ Mbàkke Ibra indi ko ngir mu doonu daara ji nga xam ni góor yàlla gu ne jaar nga ko mën naa wax sëñ jaamal sëñ pir sëñ ilimaan saako ak ñeneen ñoo xam ne sax ay mbokki xaadir lañ jaar na ji daara jooju jàng fa kooku nga xam ne nag mooy xalifa sëñ Mbàkke Ibra sëñ Mbàkke Kajoor di sëriñ Moustapha moo xam ne bés bi bisam la ndax mooy kilifa gi mu jël sëriñ Cheikh Kajoor mii boole ko njabootu boppam muy sëñ Jili Mbàkke gelo gel sëriñ Mbacke Ngaaw sëñ Jili Mbacke parcelle Touba parcelle sëñ Abibou Mbacke sëñ Abdou Khoudos Mbacke sëriñ Abdou Aziz Mbacke ak sëriñ Abibou Mbacke Kayor ñoom ñëpp sëriñ Moustapha ni leen dem leen ngeen ànd ak njabootu Cheikh Mawlay Mbara sëriñ Moustapha ñi nga xam ne ñoom lañ dénk màggal gi ngeen ànd ko ñoom ba jeex tàkk loolu ànd bu rafet boobu moo amoon seen diggante ak Cheikhul Khadim moo amoon diggante Cheikh Mawlay Mbara ak maam Amar loolu moo am seen diggante ba tey kon ñu sant leen gërëm leen ci mbégte moomu sëñ Cheikh Kajoor sëñ Moussa mi ngi sant bu baax ki nga xam ne itam la bokkaloon dëkk ci Mbàkke muy ab xaritam loolu di maam Cheikh Awa Balla xaritoo mu jël Cheikh Sidi Maxtaar tuddee ko maam Cheikh jox ko ko alaaji maam bi nga xam ni mooy xalifa maam Cheikh Awa Balla ni moom it bis bi na ma ko daan taxawoo bi fi Cheikh Sidi Makhtar nekkee noonu rek la koy taxawoo moo tax mu jël sëñ Lamine mais may tooñ naa ko wàllu yu Kajoor daal di ko yebal moom it ak une ni ko na ñëw ànd ak ñun ba maa ngi jàll kon nag mbégte moomu ñépp ràññi nañ ko ko ñu ngi sant bu baax di leen gërëm xam ne ma sëñ maam Thierno moom bis bi sëñ Lamine moo ko moom ci biir loolu nag mbooloo mi nga xam ni moo bàyyi ko ci sëñ Moustapha monsieur le gouverneur xam naa xat na loolu waaye dañoo am loo xam ni wax dëgg yàlla xol dafa sedd ndax seex Sidi Makhtar bu fi nekkee ñëpp daan ñëw mu won ñu ginnaaw depuis daaw mbooloo bi gën a toll lii fokk leeral la ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ki ci jiitu mooy sëriñ Cheikh Mbacke Ahmadou Mbacke mi nga xam ni doomu sëriñ Sidi Ndar la mi ngi nii toog sëriñ Khadim Moussaïn di xaaj boobu sëriñ Moussaïn Baara sëriñ Modou Baara di sa doomu sëriñ Khadim Awa Ba sëriñ Abdou Aziz xaadim Modou Baara sëriñ Abdou Karim xaadim Modou Baara sëriñ Sidi Mbacke nga xam ni sama mag la waaye tuuti la ma magee di premier adjoint au maire bu Touba Mosquée sëriñ Abdou Khadim moom itam di sama mag mu sëñ Basiru Xujja moom itam ñëw na teew fi sëriñ Abdou Rahim mu sëñ Ahmed Baara sëriñ Modou Baara Amar Fall sëriñ Abdou Aziz Ahmed Baara sëriñ Abdou Aziz mu sëñ Basiru Xujja sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Ahmed Baara sëñ Malick Mbàkke mu sëriñ Ahmed Baara sëriñ Xaadim Mbàkke mu Seex Sidi Maxtar ak sëñ Aliou Diop sëriñ Moustapha Mbàkke Abibu ak suñu mag ju baax je soxna Ami Mbàkke mu sëriñ Abdou Aziz Baara alhaji Ahmadou Fall Nay di suñu diyaay mu jël kàddu léegi alhaji Dame Diop mi nga xam ni moo yore kàddu njabootu Cheikh Mawlid Baara fii ci région de Louga alhaji Abdoulahad Diop di jarbaatu sëriñ bi sëriñ Abdou Assis mu sëriñ Cheikh Thioro di ak meeru Mbacke Kajoor alaaji Ibrahima Ndiaye moom it bàyyi bàyyi ko Mbacke Kajoor alaaji Moustapha Ndom sëriñ Mouride Niang bàyyi ko Touba Ngumba Ngeewul sëriñ Khadim Mbacke mu sëriñ Ahmed Baara ak monsieur Tine mi nga xam ne dañuy jàppale ci liggéey bi Ibra Sall Touba sëñ Mouhamadou Li jom mooy bàyyi ko Mbour ak Badou Sey ak ñi nga xam ni ñëpp ay taalib lañ ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi monsieur le sëriñ Xaadim Mbàkke Seex Mat sëñ Seex Mat lay ak moo Modou Aïssa wax naa ko léegi ak sëñ Maam Baara Mbàkke mu sëñ Moustapha Abdou Aziz kon monsieur le gouverneur maa ngi ànd ak ñoom ñooñu bàyyi ko ci kilifa set kilifa yu set yi kilifa yu sell yi di leen indil nuyu Cheikh Moustapha di leen nuyu di nuyu gouverneur adjoint di nuyu préfet ak sous-préfet di nuyu ñi nga xam ne ñoo fa représenté euh, capitaine euh, Diouf gendarmerie nationale di nuyu waa sapeur pompier waa santé protection protection civile service d'hygiène waa élevage Sénélec Sonatel hydraulique Eaux et Forêts AGEROUTE ONAS sécurité alimentaire la poste environnement ak ñi nga xam ne ñoo fi représenté conseil départemental bi ñoo ngi am mbégte ci li nga xam ni moo ñu fi dajale te muy màggalu jumaada uula ñu ciy fàttaliku bis bi nga xam ne ak cheikh Mouhamadul Amin ibnu xaadimu rasul mi nga xam ne mooy ñetteel doomu cheikhul xadim moo ci gane woon àddina muy bis boo xam ni cheikh Saliou Mbacké moo waxal cheikh Sidi Maxtaar ni kon nañu koy fàttaliku ndax bu jëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi cheikh Mouhamadul Amin Bara génnee àddina mu ni bis boobu nga xam ne ci feeñ jamono soxna maam ami Mbacke bi sëñ Modou Aïssa Mbacke moom it mi ngi fii ñu ngi koy siyaar bu baax bis boobu ñi jëkkoon a jaayante ak sëriñ bi Cheikhul Khadim da leen a woo bu muy ñëw ni leen li ngeen doon wut seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen ko kon kaay leen ngeen yeeweeku Cheikh Saliou wax ni bis boobu bisu taw feex la bisu faj aajo la bisu ndimbal la kon dee leen ko fàttaliku jox ci ndigal Cheikh Sidi Mokhtar moo tax mu koy fàttaliku barab bi ñu koy fàttalikoo it muy Mbàkke Kajoor fi la Cheikhul Xadim yeesalawaat sunna Seydina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam ndax fi la waxe ni shafahani rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam bi xawli rabbi asaabka bi himmatin wala rabbi im darsi faqat kon monsieur le suñuy waajur dañ fee nekkoon doon woote màggal gi ba tey mu agsi ci ki nga xam ni mooy sët bu njëkk ci Cheikh Mawlène Bara muy sëñ Moustapha muy woote màggal gi ñu am njort bu rafet bu baax nag ak cant ak i ngërëm jëme ko ci seenu wàll yéen autorités yi nga xam ni yéen dañ nekkal fii ci région de Louga ak département de Kébémer ba ci arrondissement Darou Mouhty di leen sant di leen gërëm ndax Cheikh di Makhtar ci ak nekkam nii rek ngeen ko daan taxawoo kon suñu dëddoo ngeen jël matukaay yoo xam ni moo gën a mat yi ngeen daan jël ci ak nekkam dañ leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal cant yooyu dem ba ca kaw seen i kilifa ministre de bi yëpp premier ministre ba ci président Macky Sall ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla defal ko ndimbal ak tawfeex ba yéene yi nga xam ne yéene na ko Sénégal suñu borom dimbali ko ba mën koo àndale bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ndax Cheikh Mawlid Baram moo ñu ci Cheikhul Khadim yàlla dogal ñu nekk ñun ñi ñëpp nga xam ni am nañu jël kàddu am nañu ko jël ñu ànd Cheikh Moustapha dénk ñu organisation bi ñuy ànd di ko saytu te suñ masaan ñëw fii ba wax fi li ciy wax tënk ko dara mos cee manqué ci seen wet kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm am na yàqin bu wér ni magal gi nam daan demee rek lay demee incha allah. kon ñu ngi sant bu baax di gërëm sëñ Moustapha rek di sant njaboot gi ndax ndax lii rekk la bëggoon saa su wootee ñëpp ñëw ànd ak moom ci ni mu ko bëggee kon mi ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ànd bi yàgg yaakaar naa salle bi itam miin na lool sama kàddu ci Cheikh Moustapha ndax sëriñ bi moo ñu ko tànnaloon ni mooy taawu kër gi mu yor di koy sëriñ bi yor melokaanu sëriñ bi yor xàmmeek sëriñ bi yor muñuk sëriñ bi yor lemataayu sëriñ bi uf ñëpp su ko defal ñëw toog fii waaye dara jeeg jëpp da ko bàyyi rakk yi kon ñu taxaw ko taxaw ba sëkk kon mi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ni yëf yi moom seen yëf la lam wax keroog bi mu wootee ni fii ma toog ay at rek moo ma fi teg kon at yooyu jógul kenn ci yéen kon yëf yi seen yëf la te jàpp ngeen ci yëg ngeen ko kon ñu leen sant baax di leen gërëm moom nag la ma doon wax rek muy nit koo xam ni ku oyofal boppam la mu nit ku oyof la wàcce boppam oyofal waaye li ñuy wax rek nga xam ni da ko oyofal buñ ko ci fekk buñ ko ci fekk ndax day wax ni dañ koo bokk mooy wax ni kilifteef kenn ko bokk kilifteef bokk daa wàcce boppam oyof waaye gii nga xam ne dama ko oyofal sama wàcc sama bopp kenn dimbali ma ci ku ko boobu Mouhamadou Mountakha ni mu mel ni mu oyofale boppam xam ne kilifa loolu mooy li ko war wàcce boppam oyof maaseeg ñëpp waaye oyofaay boobu war ñu ko cee dimbali ndax kilifa baat rek la am defal nga def bàyyi nga bàyyi te loolu moom ngeen ànd ak moom kon ñu ngi sant bu baax monsieur le gouverneur di leen gërëm ci taxawaay bi xam naa xat na moo tax bëggu ñoo waaye ñu may ma rek ma sant presse bi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di ñu gën ci màggal gi ndax su tàmbalee ba keroog mu jeex nii la ñuy ànd ak ñun di ñu jàpp ci liggéey bi te amu ci kenn koo xam ne am na loo xam ne teg nañu ko waa ñu koy muy ñi nga xam ne ay télévision lañ muy rajo yi muy presse écrite muy site internet yi ñu ngi sant bu baax di leen gërëm sëñ Dame Diop yaag Alaaji Badiye Fall mun dañu leen bàyyi sëñ Baara li taxoon sëñ bi tànn leen yéen a ngi ci kon ñu leen sant bu baax ci taxawaay bi leen gërëm ñu may ma sant boo xam ne kenn la ci ñun muy Alaaji Jaaje ndax da doon ànd ak suñuy di liggéey ba gisatul suñuy bàyyi muy ànd ak ñu ci liggéey boobu te dem na ba tëlee waaye nangu wut a tey kon alaaj jaaja ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant alaaj Mbay alaaj Ablaye Mbay Peex dégg naa ko fi léegi ndax préfet bi gouverneur bi ñuy wax sincère la ci teg kon yéen ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi jërë ngeen jëf ngi sant yàlla bu baax ci bim ñu boolee ci événement bu mel nii ci ndigalu euh, président de la république son excellence Macky sàll ak gouvernement am ku nekk xam na nu mu mel ci kilifa diine ak jéego yi muy dox ci jëmale ko ci diine ji ah ba tax na màggal gi dafa nekk màggal gu nga xam ne màggal gu ñu mais ren nag dafa am euh, lu ci nekk lu xam ne baax na pour ñu fësal ko gu nga xam ne mën nañu wax ne mooy màggal gi njëkk gannaaw bi ñu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke Dodo parce que daaw comme ni ko euh, euh, sëriñ Daaja Mbay rappelé léegi dafa coïncidence bi sax dafa doy waar daaw xam nga le 10 janvier lañ programmé woon màggal gi lañ programmé CRD xew-xew bi am ñu ñu fomm ko ba par la suite ñu dellusiwaat ci rapidement euh, def ko mais dañ ko defoon d'une manière très sobre mais terewul résultat yi wax dëgg yàlla yàlla dimbali ñu ba mu weesu suñu njort di nga ren man 10 janvier bi ma koy pare ma xaw ma na sax dama tànn 10 janvier rek dëgg te c'est le c'est le même 10 janvier donc dafa mel 10 janvier bu mu ñu fommoon noonu mooy ñëwaat tey doy na waat <laughs> moo dellusiwaat donc màggal la gu nga xam ne un an bi ñu sëriñ bi dëddoo ci lañ ko or ci bi ci la ñëwaat euh, CRD la aussi bu nga xam ne màggal la aussi bu nga xam ne euh, dafay am de 3 fév le 4 février te le 4 février presque dafay dafay tombi ci début campagne électorale bi nga xam ñi ngi jëm ci élection président de la république nekk xam ne élection dañ ci soxla ñaan dañ ci soxla jàmm parce que ci ñaan yooyu bu ko yàlla nangoo mu nekk jàmm ci lañ mën a organiser élection yu mucc ayib donc occasion la màggal gi soobee yàlla ñu tàllalaat suñuy loxo pour ñu def ci ay ñaan pour que élection yooyu njublu si yàlla def ci jàmm ba ñu organiser ko ci jàmm donc événement bu mel noonu su amee ñun dañ ciy taxaw niñ ci war a taxawee rawatina ren ci koow li ma wax léegi liñ ci man liñ ci taxawee nag mooy ci wàllu kaaraange wax naa ko fi léegi nañ fexe ba renforcer kaaraange gi waroon am ci biir dëkk ba lu jëmee ci euh, makkaanu xalif bi ak ñu ko wër mais ci biir dëkk bi ak surtout booy dukk dëkk bi booy dugg dëkk bi ak booy génn dëkk bi ba tax na préfet Kébémer confié naa ko loolu lépp mu saytu ko en rapport avec euh, commandant compagnie gendarmerie ak ñi ko war en rapport avec sapeur pompier bu ko defee dinañ def plan de circulation xool oto yi nan la ñuy duggee nan la ñuy génnee fan la ñuy gaare ñu fexe aussi ba laissez-passer yooyu nga demandé nañ la ko jox ñu fexe ba aussi ñu am am ay badge yu nga xam ne ñëpp dinañ leen xàmmee ku ci nekk foo nga war a dem nga mën fa dem te doo am benn difficulté sapeur pompier aussi ni ma ko waxee danañ ñëw mais dinañ fexe aussi set ak setal ñu gën ko renforcer ci dëkk bi danañ fexe ba aussi làmp yu doy làmp yu doy loolu moom dama ko confier mairie mu ànd ceeg Senelec ba lépp luy làmp bu ñu war a remplacer ñu remplacer la lépp bépp poteau bu ñu war a remplacer ñu remplacer la li ci des mooy ay branchements sociaux demande nañ liste bi bu ñu jotee liste bi ñu jox ko Senelec bu daaru mu ñu traité ko équipe en permanence dana fa ñëw Senelec wax na ko léegi li ci des nag mooy extension réseau bi euh, wax nga ko léegi je crois que loolu peut-être bu ñu ko mën réglé aussi léegi tout de suite danañ bind directeur général bi ndox mi yàlla def na euh, président de la république tabaxoon na benn forage foofu forage bi PUDC moo ko réalisé forage bi pare na ba réceptionné nañ ko danañu fexe ba ñu ubbi ko ci fan yii di ñëw duñ xaar sax ma màggal gi ñëw dama doon woo léegi directeur PDC mënuma ko jot nañ fexe ba forage bi ñu ubbi ko parce que nee nañ ma ndox mu neex la ñu ubbi ko en attendant lépp lu ñuy regle par la suite ci ay procédure ñu régler ko mais gannaaw réceptionné nañ ko mën nañu am autorisation ñu ubbi ko pour nit ñi di ci naanaale en attendant li ci des ay citerne la nañ fexe ba mu ñëw ak ay bâche à eau euh, aussi liggéey bi ñu waroon def pour yaatal yoon yeeg yooyu bu soobee yàlla dinañ ko def may signaler rek am na benn piste bu ñu ci demandé piste boobu déjà PUDC jëloon na ko en compte au niveau donc de la phase 2. loolu daal sëriñ bi mooy ci gàttal li ñu fi wax di compter nag aussi di gërëm aussi engagement yi nga xam ne euh, collectivités territoriales yi jël nañu parce que état buy liggéey aussi ci wetam toujours day soxla collectivité territoriale décentralisation ak déconcentration Euh, bu bu fekkoon ne état yaram la dañ wax mooy ñaari tànk yi mooy ñaari tànk yi fu état di liggéeyee rek déconcentration fu muy liggéey rek dafay soxla décentralisation ci wetam moo tax sànq ma ne binduñ ko ci kayit yi mais dinaa leen jox kàddu ñoom itam ñu def seen engagement te seen engagement yi ni ñu ko déggee a ah, dal na xel dañ ñaan yàlla rek mu dimbale leen ba ni ñu ko engagé ñu defal ko muy commune Touba commune Mbacke Kajoor ak conseil départemental bu Kébémer di leen encouragé bu baax. ah sëriñ loolu daal ci gàttal moom laa ci bëggoon sànni di encore sàkkuwaat ñaan ñaan gi ñu jëmale ko ci senegal ñu jëmale ko ci senegal jëmale ko ci kii jiite senegal muy le président de la République bu amee jàmm ñu am jàmm. ñu jëmale ko ci Sénégal aussi parce que Sénégal actuellement fi mu toll ñu jëm ci ay élections coow li bëri na mais buñ ci ñaanee yàlla mën na ci def jàmm. ñu ñëpp ñu bokk ko. ah euh, di ñaan aussi ki nga xam ne nii euh, mooy tey ci tey xalifa sëñ Baara mu sëriñ mustafa ñu koy ñaanal moom itam daaw fii ñëwoon na fi ànd ak ñun lii mu def ici dal na sëñ xel lii mu def nii doy nañu sëkk sëkk sëkk sëkk. boo demee nga ne ko ñun aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla la ko suñu kanam may ko fan nu gudd wér gu yaram lii nga xam ne nii yan na ko mu téeñal ko ko ah ñu te li jàmm ak salaam rek la luy jëmale umma bi kanam luy jëmale Sénégal kanam nga ne ko ñu ngi ko koy ñaanal waaw loolu daal lañ bëggoon wax ah di joxe rendez-vous rek ah, bés ba mais nag may wax comité d'organisation bi comme ni ma amee habitude di ko wax tey la seen liggéey door di commencer tey bu ñu wax rek def nañ CRD saye saye saye déedéet liñ fiy def ci CRD day bëri dafay bëri comité d'organisation ñoom ñoo ñu mën a dimbale pour que succès yooyu ñu doon am ñu amaat ñu ko raw nga nga organiser leen bu baax lépp lu nga xam ne nii am nañ ko ci ay jafe-jafe bu ñu hésité bu ñu hésité même bu ñu ma mënul jot préfet ngi nii nañ ko ko wax sous préfet ngi nii nañ ko ko wax bu ñu ko waxee ñoom parfois du mën nañ bañ soxla sax pour yeggale ma ko mën nañ ko régler wala suñ demee ba mu mënuñ ko regle bu buñ ma ko waxee ñun ñëpp ñu jéem ut solution mais daal à partir d'aujourd'hui samay numéro ñun suñuy numéro ñëpp am nañ on est accessible à tout moment ñun amuñ droit tëj suñuy portable bu ko defee buñ ci jokkoo ak ñun rek ñu topp ko ba ndam yi ñu ci doon am yàlla defalaat ñu ndam bu mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw merci